wa kullu aamin wa antum bi xeyr wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu kon ñu jox capitaine mu tijjil góor gi incha ñi fi teew ñëpp di leen ziar di leen baalu àq te di leen baal di leen ndokkeel ci weer wi di leen ndokkeel ci bés bi ah bi am boroom muy boroom xol yi di boroom xel yi di boroom ruux yi lu yàlla def ba pare la kenn mënu ci dara ah jaaduwul sax kàddu gi di gudd waaye njaboot ndigal jëfe ah mu mel ni nag dafa am loo xam ne moom daf ñu ko mës jàngal mu newoon ñu moom ci góoram gi lu ko jële woon mu newoon ko koo xam ni sa liggéey giiru dund la am na yu ñeneen di xëccoo yow doo ko xëccoo moo tax ñu nit ci loolu lañuy fonctionner xëy na yi fi jaar bëri na wax yi bëri na werante yi bëri na waaye ñun suñuy programme dafa am fu mu aju fekk loolu changé wul suñu programme du changé ah yàlla ngi def sutura ñu am proposition yu ñu ko defaloon ci cadre organisation ci cadre programme moom it mu jox ñu ci ndigal moo ñu nag bu ñu jëlee kàddu ñu waxaale leen ko ndax yàlla dafa def ren polise waroon na am waaye ma xamit ni am na farata gu taxaw te mooy budul dara am na ñoo xam ni fa ñu dëkk sore na lool te lu ñu xew lañu suivre comme ñun kon nag jot na ñu nit ñu seeti leen noo seulement amaaleeg ñoom colisée gi waaye lépp luy programme ak organisation bu bees ñu joxale leen ko directement ñoo ngi ñëw ndax it yaakaar naa fii lañ ko waxtaane woon ci benn réunion ku ne njaboot nga ne am nga cofeel dafa am loo war a moytu ndax jóg jot ci cofeel te jaaroo ci tarbiya sànku xaj na ci jot ci cofeel te jaaroo ci tarbiya sànku xaj na ci tarbiya yi du num la neexee nga koy doxalee du sa bëgg-bëgg ci aju déedéet dafa am ay règle ak ay loi yu ko régir kon nag du ko mu neex rek nga doxalee nu la neex du du du participation conditionnelle du problème de préférence principe de fonctionnement la am da nga ciy adhéré bokk adhéré woo ci nga xooli foo jëm yooyu yëpp incha allah bu ñu ñëwee daañ ci waxtaan ak yéen ci mbaaxu yàlla dañuy bañ di guddal waaye ndigal ndigal lu tudd incha allah yooyu yëpp bu jotee dañ ko dund ak yéen ci mbaaxu yàlla kon nag ah ñu bàyyi kàddu ge koo xam ne silence am defar naw jamono kàddoom kàddoom bégal na asamaan bégal na suuf kon nag bu ma guddalee ñu meram asalaamaaleykum wa rahmatullah